nu'uutun kathurat wa qad talat muftaqiran li dikrihinna utbiat wa in nu'uutun su fekkee ni ay naat kathurat dafa bari du benn wa qad talat te fekk ma ngi topp muftaqiran manuut bu di aji aajowoo li dikrihinna ci seenu tudd manuut bu aajowoo ñu tudd leen pour mënees koo door a xam nga xam ni bu ñu indee manut mi dong lisim ji dong te indi wuñu ay naatam duñu xam kan la nee na kon ut bi at nañu leen tofal ci leeraab du dagana dog su fekkee ni boo ne jaa zaydun duñu xam kana fokk nga ni al tawilu al xayaatu al leneen ak leneen su fekkee ni boo ci xam ne boo ko indiwul duñu ko xam nee na fokk nga tudd leen yëpp bu fekkee boo benn boo ci wàññi kenn du ko xam yëpp ngay def itbaa doo ci nangu dog benn dog nag buñ ko xee rek mooy def ko xabari mubtada wala nga def ko muy maf'ulun fi'l bu ñu xam maanaam su fekkee xam nañu zayd boo ne jaa zaydun ñu xam ko kenn la sooye boo ni at tawilu marartu bi zaydin it nga ni at tawilu ndaxte tawilu bi maanaa huwa tawilu xabar mubtada mu ñëw wala at tawila aani maa ngi ci jublu at tawila yooyu yaar noonu la ñu def xat o file su aajo yëpp tuddal yëpp awa waqta awat bi in yakun muayyanan biduniha aw baada xaqta muclinan waxta bu la neexee nga dog def xabar mubtada wala maf'ulu fi'l ju ñu xadaf awat bi wala nga tofal ci liraab yooyu yaar dana am xaal bu loo ci neex def mooy in yakun su fekkee dafa nekk man ot muayyanan di ku ñu ràññi bidoonihaa ci lu dul sifa yi boo ne sayd rek ñu xam ko kon naatam yooyu bu la neexee tofal leen ci liraab bu la neexee dog leen ñu bañ ca topp nga def leen noonu ma wax rafa muy xabaru mubtada mu ñu xadaf wala nasab muy maf'ul fi'l ju ñu xadaf faw dana la wax ne du tee yooyu yaar moom dañ leen di xadaf faw de aw iqta wala nga dagg baadaha yenn ya tofal yenn ya mu'linan nga di ko aji feeñale ak yi ñu tofal ya bi sharti nag taqdimil mutba bu fekkee dañoo bare te yenn yi da nga leen a nar a tofal ci liraab yenn yi nga nar leen a dog bu fekkee ni mën na ràññiku ci lu dul lépp bu la neexee dog yeeki waaye nag il faut ya ñuy tofal nag mooy jiitu nga ni jaa zayduni tawilu door ni alkarima aani alkarima marartu bi zaydini tawili alkarimu mbaa alkarima fokk bi ñuy tofalay jiitu daal waaw bi nga xam ne nag moom boo ko asfee duñu xam kanam moom nañ ko tofal buñ ko dog warfa awan sib awin sib in qataata mudmira mubtadaan aw naasiban la jazhara li ma waxoon ni la lu mu ci manti doon nag boo ko dogee mubtada ma ngay xadaf mu doon bàyyi fa sifa ba wala fi'l ja ngay xadaf yooyu fokk ñu xadaf leen faw moom la la moom la ni warfa rafaan awin sib in qataata su fekkee dangaa dagg bu la neexee rafaa ku nga xabarum tëdd wala nga nasab ko mot mi ran ngay aji nabb foofu maanaam xadaf mubtada wala fi'l naasiban yoo xam ne la ñal xaraa duñu mën a feeñ mukk nag yooyu wa ma min al manuuti wa naati uqil yajuusu xadfuhu wa fi naati yaqil wa ma uqila lu ñu xam ay wa ma urifa yajuusu dana dagan xadfuhu xadafam loolu xaw na nekk qaacida amma dégg nga diggante mubtada xabar diggante naat ak man'ut diggante bari na lool wa xadfu maa yuclamu jaaisun xaw kaada an yakuna amman fi kulli xukm te waxoon na ko ci bopp téere xam min al man'uti ci borom naat ji wa naati wala naat ji ci boppam yajuusu den dagan xadfu foo xadaf la loola mu bare lool bu fekkee man'ut baalak bare na lu ñu koy xadaf jaa tawilun dong mën nga ko wax ku ne xam na ni rajulun tawil لأن النعت يدل على المنعوت بخلاف العكس du doonul li man'ut moom laa yadullu ala naat soo su fekkoon ne da nga ni jaa zaydun ana kan moo cay dégg ne tawilun la wala qasir waaw boo nee jaa tawilun ana kan mooy dof ba defee ni tawilun du jëmm ju ñu tuddul moo ko moom fokk lu waay dof dof xam ne rajulun tawilun nga jublu wala insaanun tawilun man'ut mi moom fokk ñu wate fa inna naata yadullu daiman ala al man'uti min xayri aks yaani almanut la yastalzimu naat wala yadullu alayhi moo tax kon xadafam bu ñu ko xamee nag mën nañu ko xadaf ne kii ka qawlihi taala dégg nga yaxudu kulla safinatin wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin gasban kulla safinatin amoon na naat yu ñu war a tudd dalla alayhi ma sabaqahu waaye tudduñu ko de safinatin salimatin bu mucc bu baax wala saxiixatin wala gayri macibatin bi dalili qawlihi dégg nga wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin maanaa dafa noon fa aradtu an acibaha loolu mooy li ko tegtale dama bëgg ba mu ko ne lu tax yow def yaa ngi def njaaxum kat gaalu jàmbur gi ngay toj mu ni waaw aradtu an acibaha dama ci bëgg a def ayib wa kaana nekk na waraahum malikun ca seen kanam dañuy mujj àgg ci buur boo xam ne ma ngay jël gaal yi rek yaxudu kulla safinatin xasban ma gaar gu fa jaar rek mu jël ko mu nangu ko ci borom moo tax ma bëgg cee def ayib loolu lu muy tekki maanaam ma bëgg cee def ayib joo xam ne su ko gisee dootu ko bëgg te ñoom du tee seen xottu gaal danañ ci mën liggéey moo tax moom laa ci jublu la damay defar yàqu ko ba mu fabee semiñ wa rek daal di xàpp ci gaal gi toj Moussa ni ko nag ni ko nag axaraqtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita cheyan imran xaala mu ni ko waaw ba mu ca yeggee nag ba mu yeggee ca mujj ba mu di ko nettali nag yi li tax mu doon def yooyu waaw sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabran amma safina fa kanat li masakina ya'maluna fi lbahr fa aradtu an a'ibaha ndax lu tax kaana mala waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ah bu fekkee gaal gu fa romb gu baax ak gu bon yëpp lay fab kon toj gi mu ci toj di ci def ayib lu muy jëriñ ah waa nu xam ne kon loolu tegtala ne yaaxudu kulla safinatin saxiixatin xasban mbaa salimatin wala gayri macibatin ah waaye daal fokk naat ji moom ma li dawlu woon tegtale na ko kooku lu néew lay am ndaxte man oot da dul tegtale naatam naat nag day tegtale man oot soo nee rek ah su fekkoon ne da nga ni dama ko ndax buur ba yaxudu kulla salimatin ndaxte maanaam bu ne woon yaxudu kulla salimatin day fab bépp bu mucc nu xam ne gaal a tax muy wax kon kon safinatin nu dégg ko ca wala ni ma la wax ne rek boo noon jaa a tawilun dañuy xam ne rajulun tawilun nga wax waaye soo ne rajulun kenn du xam ne tawilun la am xasir loolu daal mooy leeral bi moom an imal sabiqatin maanaa duroo an sabiqatin su fekkoon dafa ne an imal duroo an rek kenn du xam yu gudd lay doonam yu jot lay doonam yu gàtt lay doon an imal sabiqatin wa qaddir fi sar waaw hakada annaati yadullu ala almanul min gayra wa fi moo nag mu ni lu ñu xam nag yajuz xasbuhu wala wa yaqilu nag fi naat waadix waaw ngoo albayin tawkiid nag am na ay alfaaz bi alfaazin maalumatin ni ki ajaruma wax ndax benn muy tegtale raful rafu tawahumil majaaz dégg nga wala muy tegtale iraadatu shumul yooyu yaar rek su ko defee nag ay baat wa yakoonu bi alfaazin maalumatin bi nafsi wal ayn ak yamu ko boole loon bi nafsi wal ayn bi nafsi aw bil ayni lismu ukkida ma a damirin taabaqa al muakkada nee na ukkida al ismu dañuy feddali lisim dégg nga bi nafsi ci baatu nafs wala ayn yooyu yaar su fekkee rafu tawahumil majaz da ngay dindi ba nga ne jaa zaydun rek da ngay ragal ne lee ñu ne ah kilifa gu toll na zayd day xam nga ni lii du ko tax a jóg xanaa dafay wax ni yónnee na kenn ci njabootam nga ni nafsuhu su ko defee kon doone jaa zaydun ña jàpp ni mën na am dafa bëgg ni yónnee na defe nañu ni dangaa jëfandikoo majaas ci sa wax nga bëgg a dindi tawahum googu nga ni nag nafsuhu wala aynu maa damirin fekk ñu ànd ak damir tabaqal mu akkada yoo xam ne day dëppoo ak mu akkat ma ci doonam muzakkar mbaa mu annas wala waaxid wala lu ko bu dee mbooloo nga ni jaa zaydoona anfusuhum dégg nga wala bu dee mu annasaat la nga ni anfusuhunna wajmaahuma na nga jam u ñaari baat yooyu nafsoog ayn bi anfusin na nga leen def siixatu jam u taksir qilla aful anfus in tabia bu ñu toppee maa laysa waaxidan bu dul kenn su fekkee kenn la ga falaa xubaara alayhi wax nanu ko jaa zaydu nafsuhu wala aynuhu waaye bu toppee lu dul kenn lisim ñaata ñaata adat la mën a nekke benn mbaa ñaar mbaa ñett mufrad mbaa tasni mbaa jam mu ni nag bu dul mufrad rek def ko af'ulin atta buy tasni ñaar lañu jaa zaydaani anfusuhuma ngay wax te ñoom ñaari nafsu la yor lu tax mënoo waxoon ni nafsahuma ah li karahatihim tawaali tasniyatayni aw shibhuma ah loolu ndaxte ñaari tasniya dafa dafa diis te ñaaw ci waxinu arab du dëgg te soo nee nafsahuma nafsaani tasniya la huma it maanaam tasniya la amee damiru ñaar la te ñaari tasniya mbaa lu ko niru te mooy damiru ñaar tegale leen day ñaaw ci waxu arab moo tax ngay wax qataatu ruusal kabshayn dégg nga ko de ñaari xar nga rendi leen ba dagg bopp nga ne qataatu ruusal kabshayn waaye bul ni rasayil kabshayn ñaari tasniya yooyu looloo tax bu boobaa nag jaa a zaydaani anfusuhuma jaa a zaydoona anfusuhum in tabia maa laysa waxidan maa laysa mufrada kon noonu ngay def soo defee loolu daal takun muttabian lil arabi fi kalamiha wala li naxwiyiina fi xukmihim وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا مني كلا كل موم اذكر كلا في إرادة الشمول سفكي دنگا بغ فسل لما يوخ عاملة شمول موي عموم متلي غني جاء الناس فدلي كلهم غير بوني جاء الناس رك manees na defee ne xëy na da caa am ñu dikk kon it boo ne jaa annaasu te ñetti gaay dikk rek wax nga dëgg waaye nag nga bëgg a xam ni nag ñëpp a dikk kon kullu moo man loolu ak lu mel ni kullu wala jamian jaa annaasu jamian mbaa bu fekkee ñaar la nga ni jaa zaydaani kon waxal kilaa kilaahuma jaa atil marataani nga ni kiltaahuma dégg nga musalan muy lu ñu jokk nag moom kull ak yi mu àndal nga jokk leen bi damir ci damir al mutaabiq jaa zaydaani kilahuma hindaani kiltaahuma annaasu kulluhum aljeyshu kulluhu kulluhu alqabilatu na naka noonu jamian ak jamian dégg nga nga ni tey jaa annaasu jamian aywa nu bàyyi nag jamaa oog yooyu ba tudd ko léegi wastacmaluu aydan ka kullin faacila min amma fi tawkiidi misla naafila wastacmaluu jëfandikoo nañu faacilatun min amma maanaa siiqa wasnu faacilatin min amma muy ismu faacil danañu ko jëfandikoo te kon aamimatin moo tolloog faacilatin falaa budda min min idgaamil miimayn nga ni aamatan baatu ammatan daal way wee tax mu ne failatun min amma rek ndekoon mu ne wastaamalu ammatan benn waaye pour mu jub ci biir way wastaamalu failatan min amma ka kullin ni ñuy jëfandikoo kull dégg nga fi iradati shumul jaa annaasu ammatuhum bu la neexee nag dindi damir ji nasab ammatan ni ngay waxee jamian bu la neexee ni jaa annaasu jamiuhum wala nga ni jamian jaa annaasu ammatuhum wala ammatan yooyu yar loo ko ci defee danañu ko jëfandikoo ci iradati shumol ni ñu koy defee ci kullun nee na fi tawkiidi ci feddli misla naafilatin mu mel ni naafilatun loolu nag ci lan ay fii luzumi taa'i walaw ittaba muzakkaran wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba naafilatan naafilatan du sifas yaqub la waaye teewul la day ànd ak fii luzumi taa'i moo xam góor la topp wala jigéen nee ñu noonu mooy ira muraadu ibnu malik bi xilaafi ma fahimahu ibnuhu badruddin ba mu koy saraal mu ne mu ne nag ba mu dikkee ba fii mu ne ah walaysat naafilatan li anna kasiran min annahwiyiina zakaruha du naafila maanaa du naafila day firi zaida maanaa doonul zaida ci baati tawkiid yi ndaxte lu bare ci nax yoonay tudd nañ ko ña ko taaqub gannaawam ni ko nag ni ko nag xëy na dafa déggul li go li baayam namm moom dafa ni misla naafilati fii luzoomi taa'i misla kalimati naafila fii luzoomi taa'i walaw ittabaa muzakkaran loolu mooy muraadu wa baada kullin akkadu bi ajmaa jam'a ajmaciina summa jumaca wa duuna kullin qad yajiu ajmacu jam'au ajmacuuna summa jumacu was nee na wa qad yajiu mën na ñëw ñetti baat yooyu ajmacu boo dee tawkiit loo xam ne mufrad la ni ki aljeychu mufrad la nga ni ajmacu mufrad la boo xam ne boroomi ajza yu bare la jaa al jeysu nga ne ajmau nde jaa zaydun ajmau moom kenn du ko wax te zaydun ak jeysu ku ci ne mufrad la waaye nag zayd shaxsun muayyan la jeysu nag tur la ñeel am mbooloo tur wi mufrad la naam waaye kenn du ni jaa zaydun ajmau te da nga jaa al jeysu ajmau nee na wa akkadu bi ajmaa baada kullin nga ne jaa al jeysu kulluhu ajmau wala jam'aaw jaa'at alqabilatu kulluha jam'aaw wala ajmaciina marartu bilqawmi kullihim ajmaciina summa jumacu jaa'at alqabaa'ilu kulluhunna jumacu jumacu ma ngi mel ni yow mu mu ni maanaam jumacu jam'u jam'a daal la jumacu kon fa huwa maadulun du jamu xaqiqatan day maadul min jamaawatin ne ba tey waqat yëji mën na ñëw itam ajmau ak jamaaw ak ajmau naak jumaaw doona kullin ci lu dul ñu ànd ak kull nga ne rek jaa al jeysu ajmau wala jaat al qabilatu jamaaw maratu binnaasi ajmain ay wa jaat al qabailu jumaaw ak yemu ci doon tofal ci ajarooma bu jumaaw dikkee ku taaw ku saaw bu taaw yooyu la loolu lépp mën na nekk wa in yufit tawkiidu mankurin qubil wa an nuxaati lbasrati lmanu chamal gannaaw ga nag lisim ji bu dee maarifa ci tawkiid kooku laa xubaara aley ndax baatu tawkiid toujours maarifa lay doon ndax dafay war mu yor damir te lu laaf damir maarifa la te day yor damir ju dellu ci muwakkat ba tax na boo dee feddali maarifa kooku amul luñ ci seet waaw su baat bi nga dee feddali di nakkira nag kooku day bu dee waa basra ñoom nee ñu nakkira kenn du ko tawkiit ndaxte mu mu ak tawkiit ak mu akkat mënuñoo wuute ci taarif ak tankiir bu dee ci koofa nag ñoom daganal nañu ko du dëgg ñu ni nag xanaa bu doodee nakira joo xam ne mahdud la am na ay taraf yu ñu xam kay yawmin wa shahrin amma xiinun kese ak muddatun kese yooyu kenn du ko tawkiida dégg nga moom la ni wa in yufit bu jariñee tawkiidu mankurin nakiraal lu ñu feddlig lu ñu nakiraal nee na kon ko bi la ñu nangu tawkiid ga fa indal koo fi yéen waaye wal man u tereg tawkiidu nakira chamala ëmb na bu am faida ak bu amul faida an nuxaati basrati mbir mu ñu koy nettalil ahlu naxwi ca basra te ñoom nag bu dee naxwi ñoom la ñu jiital neeñ bu dee tasrif ñu jiital waa kuuf ñoom nag gàntu nañu loolu a am ñu ni nakira fi muy amee faida nag bu amee ay taraf ñu xam fu mu daleeg fu mu yem wuteeg xiinun kese jaa a zaydun wala makasa sax na fa xiinan ñaata fan la wala ñaata heure la mën nga ko xam ci xiinan waaw boo noon shahran du xam nañu ñaata bis la ba xam heure yi wala yow man xam nañu fu mu daleeg fu mu yem kon nga ni labisa sax na indana shahran kullahu kooku ku fa daganal nañu lool ah mu ne nag wa wa chamala ëmb na alman u tere ga ind al basriyin nee na chamala al mufida wa xayrul mufid li ami taraf ak li ko amut waaye nag wa minhu qawluhum ci bu amee faida ba feddali gi ko fa jàpp nañu ci waxu kii ni yaa laytani kuntu sabiyan murdaa taxmiluni dalfaahu xawlan aktaa ida bakiitu qabal ida bakaytu qabalatni arbaa summa arbaan summa arbaan summa arbaa idan zaliltu dahra abki ajmaa kooku di di di xasal ci zalfaa u zalfaa u maanaam almaratu alxasana foofu daal la ci jub mooy xawlan aktaa aktaa maanaam ajmaa xam nga kooku taabic la ci tawaabi o ajmaa jëfandikoo na ko nag ci lu dul dawal ajmaa xawlan ajmaa masalan xawlan xawlu nakira la waaye maxduud la xam nañu ni fukki weer ak ñaar la weer wu ne nangam fan wuteeg xiinan kese kese kooku kenn waxul ni mën nañ koo fee def wax na bikilta fi musannan wa kila an wasni faalaa wa wasni afala wax na doy lool ci kilta boo dee tawkiit ñaari mu annas fi musannan ci luy yoo xam ne mu annas lañu musanna moo xam ne mu annas la na nga feddalee kilta doyloo ko walis nga naan jam'a waani soo ne jaatil qabilataani dëgg waay bul jekki naan jam'a waani tasniya jam'a ni nga naan jaatil qabilatu jam'a loolu nga wax waaye jaatil qabilataani au lieu nga naan jam'a waani nil kiltaahuma rek jeex na soo ne kiltaahuma desalul kenn wa kilaa itam jaa al jeysaani wal au lieu nga naan ajma'aani nil kilaahuma rek doy lool ñooñu ñaari baat an wasni fa'ala walis wasina wasi wali walis wasnu fa'ala ni ki jama wasni af'ala walis it nga doyloo kilahuma walis ngay tasniya ajma'anaan jaa jaa al jaysaani ajma'an wa in tu'akkid ad-damir al-muttasil bi nafsi wal ayni fa ba'da al-munfasil anaytu sarrafi wa akkadu bima siwahuma wal qaydu lan yultazama wa in tu'akkid su fekkee da ngay feddali damir muttasil te nga feddale boo ko dee feddaloo kulloog yooyu waxuñu ca dara sooye boo bu dee damir muttasil man nga ni jaa'u kulluhum bu la neexee kenn du ca wax dara ah déet maanaa ra'aytuhum kullahum laa ni soo ko waxee kenn du ca wax dara waaye soo ne jaa'u kulluhum foofu la nuy bëgg a wax li nuy wax wa in tu'akkid soo dee feddali addamir al muttasil bi nafseeg ayn dégg nga fa baadal munfasil bu bu nekk lu dul gannaaw munfasil bu dee jooñu ñaari baat jaa'u anfusuhum jaa'u ayunuhum bul wax loolu jaa'a anfusuhuma bul wax loolu du dëgg ndax nafsoog ayn bu doon kullu la waxunu ca dara man nga ni jaa'u kulluhum kon nag fala tu'akkidhu illa ba'da tawkidihi bi damiril munfasil nga ni kon jaa'uhum anfusuhum dégg nga wala jaa'uhum a'yunuhum dégg nga wala ji'na dégg nga hunna anfusuhunna moom la ni soo dee feddali damir muttasil bi nafseeg ayn fa baadal munfasil ñu ni ko muttasil bu ne nag bu dee bu nasab na mu ne anaytu maa ngi si jublu dar rafi boroom rafaaga de damir marfo ba niki misaal mi nu wax wa akkadu bi ma siwahuma wal qaydu la yultazama fekk feddale nañu ak beneen baatu tawkiid bu dul nafsoog ayn danañu ko feddalee wal aynu wal qaydu te mbir bu mu tënk bii ñu ko tënk ni foog na nga ko jëkk a feddaleeg munfasil la yultasama kenn du ko ca warlu bu boobaa bu la neexee def bu la neexee bañ a def bu fekkee ni du du nafsoog ayn naka noonu bu fekkee ni damir ba du damir bu ñu rafaa it nag nga ni raaytuhuma anfusahuma ndaxte damir bi du damir marfo waaye du dëgg daraba zaydun nga ni nafsuhu rek déedéet huwa nafsuhu quumoo antum anfusukum waaye quumoo anfusukum rek duñ ko wax waaye bu doon beneen baat si waa huma nga ni quumoo kullukum du wàññi dara su fekkee da nga ni ra'aytuhum anfusahum comme ba tey damir bi nga feddali du damiru marfo wa ma min altawkidi lafdiyun yaji mukarraran ka qawlika druji druji wa ma yakunu mukarraran la nga xam ne dafa dikk di baat boo xam ne dañ koo takraar moom lafz ba kooku luñ koy tudde tawkiidu lafdi lañ koy wax boo ne jaa zaydun zaydun su ko defee naxwu noppali noppalu na foofu kaddu la moom yoonam newul ci maanaa yi bu dee maanaa nga bàyyi ba dem ci fànnu balaaga maani ñu ni la da nga cay wattandiku te tawahumul xalat da ngay bañ ñu defe ni sa lamiñ dafa juum waaye xëy na amar nga doon bëgg a wax ñoom maanaa yaa leen tax a jóg naxwu nag tarkibul alfaaz yi moo ko tax a jóg kenn du ci yóotu sa mawdoo u morom moo tax mu ni baat bu dee baat bu ñu takkaraar moom tawkiidu lafzu yi su boobaa nag dara moomu ko dara moomu ko lisim dootu ko jagoo tawkiidu lafzu fin lit noonu bu la neexee ni jaa a jaa a zaydun raaytu raaytu amran tawkiidu lafzu yi su fekkee ni lisim la noonu aywa bu dee xaraf noonu lu dul bu dee xaraf nag dana la ni xaraf moom kenn du ko ber moom dong fokk la mu àndaloon nga bu fekkee ni inna nga bëggoon a fedd te tawkiidu lafzi da nga naan inna zaydan inna zaydan qaa'imun waaye bul ni inna inna zaydan qaa'imun xaraf du dugg ci xaraf ñu ni ko liñ ci dégg day dafay chaise boo xam ne laa yuqaasu alay de dégg nañu inna inna alkarima yaxlumu maalam yara yan man ajaarahu qad dima loolu kenn du laa yuqaasu alay naadir la inna saydan innahu xafur boo demee ci alxuraan inna rabbaka fa ayna ila xayna najaatu ataaka ataaka laaxiqoo nax bisi bisi ataaka ataaka laaxiqoo nax bisi bisi ihbis ihbis tëyel tëyel sa daba gaaña lay dab agsi nañ wajaa wa dakkan dakkan waaw